mbokki internet dal leen ak jàmm seen chaîne youtube di Buzz Actu 221 di chaîne bi leen di jox ay xibaar yu wér te wóor leen te bés cloche de notification bi ngir nag dara bañ leen raw suñu ay xibaar Buzz Actu 221 ci coow ak jafe-jafe yi nga xamante ni jamono ji ñoo ngi koy daal di nemmeeku fii ci réewum Sénégal ñu daal di koy jëmale nag ñenn si ay acteur politique kii di maître Ngagne Demba Touré nekk ordinateur national de la jeunesse patriote sénégalaise di JPS mi nga xam ne nag jamono ji dañ ko daal di dissoudre maître Ngagne Demba Touré daal di publier ci ab page Facebook ak yenn ay photo yoo xamante ni daal na koy fësal mu daal di xamle nag jamono ji daal na kiite fii ci réewum Sénégal mu nga ca diwaanu Mali di ko waral nag ne wóolatul benn yoon justice bu Sénégal ba noppi nag coono yi nga xamante ni ñoo ngi ko koy daal di teg moom ak leader bu Pastef ak ñenn si ñi nga xamante ni ñoo faree ci Pastef loole nag mu koy daal di méttitlu waaye tamit di ko ñaawlu moom maître Ngagne Demba ture mu daal di xamle nag jamono ji day bañ nag état bu Sénégal mu daal di koy sàkkal pexe waxee ci kanam noonam ba tax nag mu exilé foofee ca diwaanu Mali ci bile exil sax mu daal di si jël ab exemple ci de Gaulle mi exilé woon ci mois de juin atum 1940 ak Ayatollah Khomeini mi nga xamante ni dafa exilé woon ca Irak mu daal di fa yam fukki at ak ñeent ci atum 1964 jàpp 1978 maître Ngagne Demba Touré ne donte sa jamono ji dañ lay exilé ca diwaanu Mali waaye nag xeex bi nga xamante ni dañ na koy sumb li ñeel wàllum injustice bi nga xamante ni kii di njiitu réew mi di ak régime ma ñoo ko daal di def fii ci réewum Sénégal dina ko daal di wéyal ba tey nag ci ay gàddoom mu ngay daal wax ne cant ngërëm la daal amal ask réew ma Mali ñoom ñi nga xamante ni nag jamono ji ñoom ñoo ko daal di accueillir ci ay conditions yu mucc ayib maître Ngagne Demba Touré ne nag fi nga xamante ni foofu la daal di nekk ci foofu jamono ji ca jiwaanu Mali foofee la mën a gën a wéyal xeex bi donte ci anam yi nga xamante ni foofu la gën a am doole waaye tamit foofu la gën nekk ci liberté di ay kàddu yoo xamante ni moom Demba Touré moo ko daal di fésal ci pasam Facebook